del déglu del xool Feeling Dakar site lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar mbokk internet yu Feeling Dakar gis ngeen fi mu nekk nii euh, fi ñu nekk nii mooy Norfa studio bleu bu Papis Ndiaye studio bleu bu Papis Ndiaye fi la Wally di enregistré album donc album bi nag ay heure rek moo ci des ngir mu génn donc moo tax waxtu bi la tembe donc il fait trois heures du matin au Sénégal mais Wally Ballago Seck mu ngi fii ci studio bi ñuy def dernier réglage yi nga xamante ne bi moo aju ci album bi nga xamante ne bi Wally moom lay génne le 19 suba di le 19 tey ñu nekk ci le 18 trois heures du matin déjà studio bi mu ngi fees dell nekk di def dernier réglage yi tout le staff de Wally Ballago Seck ñu ngi fi waa Ramadane yëpp ñu ngi fi également ngir def dernier réglage yi daje nañu fekk kenn ñu koy wax Youssou Dieng alors Mbaye ci moom la ñuy dem directement donc xool lan mooy xanaa nelaw leen <laughs> mais Youssou nelaw jeex na ah, man man man dafa war euh, <laughs> ah, naa ne faramaare di rek nelawul Youssou nelaw nelaw jeex na dafa war naa ne faramaare di rek nelawul ah <laughs> waaw mais nelaw jeex na mais jàmm jeex na mhm. xam nga Wally moom comme la façon dont il est attendu. Mhm. <laughs> et que on n'a pas droit à l'erreur. Mhm. tu ñu nekk di rek les dernières euh, réglages rek ah. fu mu ñëw ci cartouche bi. Mhm. dernière cartouche. Ah, sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw Mbaye démb barki démb dañoo dégg dañoo dem si euh, écoute. mooy Pape Diouf. waaw kii woom bi muy mais dafa ni dafa am single euh, dafa dafa xaaj album bi. le 19 lay mhm. eggali. Mhm. macha allah te yéen a njëkkoon a lancé la 19. lan ah, moo tax lan moo tax loolu dara bés yi kenn moomu ko. ah, ah mais est-ce que du andi ruuma daat non non bés bi mm. d'abord dañuy féliciter Pape. Mm. album bu mu def. dañuy mm. féliciter di ko jaajëfal ndax la façon. bi nga xamante ni moom la artistes yëpp euh, euh, euh, jugee. c'est nice nii la war a demee yëf dafa war di dox. dafa war di nice dafa war di di di di di di di di wane ni wax fa dëgg yàlla la musique sénégalaise dafa war a dund. Mhm. ah ñu koy féliciter ci sortie albumam bi mu def bërk démb le 16. Euh, suba son frère. Mhm. ah euh, Waly Balago di génn suba gannaaw ko aayewal sa moom nag suba ñoo aaye. mais Youssou dégg naa li album bi di génn suba moo tax tey tëggu leen. waa waaw waaw waaw on avait vraiment. Mhm. par erreur kale euh, woon pour jouer pour tey. mais après liggéey bi ah, on s'est rendu compte que ne c'est pas normal mhm. ah pas c'est pas normal sax mais dafay metti ci musiciens yi mhm. parce que dañuy def euh, présentation album bi te présentation album bi euh, l'équipe technique ak musicale yëpp dañu wara a ñëw présent pour wax sénégalais yi album bi naka la juddoo mhm. naka lañ ko préparé yan sonorité lañ ci def choix yooyu yëpp foog ñu wax kook askan wi mhm. donc pour musiciens yi mën a noppaliku ñu ne nañu nañu off tey ñu kiy ñi ciy jéggalu nag di jéggalu mhm. sénégalais yëpp mhm. jéggalu ñi nga xamante ni vraiment programmé woon nañu am na sama rakk joo xamante ni almadi dee la jóge ma nga sañ sa ba màtt gejj ndeysaan fee la mujjee toog ndax euh, xamul woon ne dañu annulé soirée bi ñi ciy jéggalu bu baax a baax a baax mais mais c'est comme ça dafay wane rek liggéey bi ñor nañu waaw et que comme sénégalais yi waali daf leen dik Euh, euh, euh, un nouvel album. Mm-hmm. de quinze titres quinze titres donc pour won leen na ñor na ko. Mm-hmm. pour won sénégalais yi ne luñ ko nam rek lim leen raw ko ëpp. Mm-hmm. mu bàyyi lépp mu ngi ci studio bi toog. mi ngi ci studio bi waaw il est dedans mais ah, ah. mais précipitation bi 3 heures du matin heure bi ngeen di def le tout pour suba. mu lan mooy lan mooy waaw mais c'est parce que euh, digga bor la te ñoo ko dig sénégalais yi waaw ah. woykat baa ngi. ayca woykat baa ngi nii Mbaye donc voilà mu ngi nii li ñu doon wax euh, sànq ba léegi donc à quelques heures donc album bi nga xamante ne bii moom la Wally Ballago Seck di génne ay heure rek moo ci des pour album bi génn Wally ñu ngi lay nuyu. Feeling Dakar ñu ngi lay nuyu. dañu ñëw tey exclusivement pour xool dernier xamante ne bi koy def. def ci album bi. <laughs> ay kër rek moo des mu génn. <laughs> incha allah waaw lan lañu lan la lan a xaar Wally pourquoi tey nga annulé ce soir ngir ñëw def dernier réglage yi. Euh, avant tout maa ngi nuyu waa Feeling Dakar yëpp. Mhm. di nuyu suma grand Bamba. Mhm. c'est mon grand frère d'honneur. donc jaar bu baax a baax di siyaar képp ku ñu seetaan. Euh, soirée bi dañ ko annulé parce que c'est mieux pour moi en tant gars yi nañu am nga en plus euh, techniquement. seen choix. Mhm. donc ñu ngi jégalu ci ñu ngi jégalu ñu ngi jégalu incha allah. c'est à remettre macha allah mais précipitation bi heure bi trois du matin donc staff bi yëpp nekk fi yow nga nekk fi maa xawaroon ne pare woon nañ ba ñu boucler lépp. non ça n'a rien à voir. Mhm. ça n'a rien à uh-huh. euh, n'a rien waxtaan taaj teg xool naka lay demee. li ci des bareetul. bareetul ay heure rek. ay nga dëkk bi. <laughs> waaw waaw ban ban ban moo la moo la mooy mooy sa fort moom nga gën a bëgg. exclusive exclusive non non waaye may ma ko waaye may ma ko may ma ma la bàyyi de barki yàlla du ma la bàyyi. bàyyi ko rek bàyyi ko rek bàyyi ko rek. non du ma la may dara de. non non parce que waa li wax ji dafa bëri trop il faut tamit xam nga. wax ji dafa. dafa bëri. moo tax moo tax mu def nii. non non waaye waaye eh, eh, Aziz boo ko caw. <laughs> ayca mi ngi noonu donc eh. staff bi yëpp a ngi nii ah. Benjamin vraiment non tey woo waaw waaw léegi léegi léegi naka jëm a génn. Benjamin Benjamin ngi noonu. tout le staff macha allah. Benjamin ngi. ba Benjamin liggéey Benjamin liggéey na ci album bi lu rëy. sama gars yi. ma bokk ah, ah. benn bu album bu album bi di génn benn benn mënoo cee ñàkk a wax. dégg maa ngi ñëw. non noonu gis nga tout le ah, ay heure rek ci des macha ay heure rek des ci album bi donc voilà mi ngi noonu Faramaren baa ngi noonu. Eh, ah. li mooy li mooy li mooy préparation ay bëri na jënd tamit foofu ñaata oto la eh Ousmane Thiam Ousmane Thiam muy ñaata oto la li mooy préparation bi macha allah Marie Assine may sa biig le 19 suba dëkk bi dina wàcc Benjamin ngi noonu Cheikh Anta Ndiaye <laughs> waaw Benj non mais benn dégg naa album dégg naa album bi benn liggéey nga ci liggéey bu am solo am solo am solo am solo lan la ñu mën a xaar ci album bi comme sonorité Benjamin ah Bamba maa ngi lay nuyu di nuyu waa Feeling Dakar di leen bëggee bu baax a baax ah di wax ni fi ni moom wax amatul ah, wax amatul de waaw <laughs> ah, suba rek te gars yi dem déglu ji wax ñu ah, cëw. waaw ah. mais lan moo tax la problème la Sénégal bu diis a diis la ñu am. xanaa dégg ngeen métti métti. xanaa dégg ngeen liggéey te wàññi coow li moo ma ah. gënal wax ju bëri. <laughs> dëgg la loolu nag mënoo ko wax ba pare di wax. mais le 19 daa am ñaari ñu lancé. yan. Pape Diouf lancé saw lancé. taxaw non non taxaw Pape Diouf dafa xaaj album bi. Hmm? le lay eggali muy suba. Pape ah bon waaye mbay waay prévision bees mbay waay moo mooy wax lu ne moo tax ngeen song ma Cheikh Mbacke Bouhari xam naa loolu mais Cheikh yaa ngi fi woon donc durant enregistrement bi yëpp lan nga ñu ci mën a sàcc wax mu ko ci album sam papa nee na looy bañ mu yegg si bu ko jàppal dara dëgg la fi ñu toll suñu bët dafa xonk ci gis nga. Mhm. man damaa wat bu rafet mais mënut a génn sax ndax nelawul. ndeysaan sama looy bañ mu egsi bu ko jàpp bu jàppal dat dëgg la le 19 muy suba daanaka ñu ngi ci le 19 di nga xam ne Angleterre pomme de terre bokkul teer gee leen boole. barki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Sëñ Tuubaa sax dama giñ ci ay misi waaye a ne la. Ah. waaye liggéey na. te lu ñu wax ku liggéey. ku liggéey fayoo yéen a ma koy eggal ku liggéey fayoo ku liggéey fayoo. <laughs> jaajëf Cheikh Mbacke. ah dañuy dañuy dañuy dama man damay fogeer rek du ma bàyyi dara ah ooy. Cheikh Anta Ndiaye. yaa tëgg album bi. waaw gis yaa ko tëgg loolu la mën a xaar suba le 19. non. ay heure rek ci des fi mu nekk nii. barke Cheikh Ibrahima Fall. su waa dégg-dégg wayin ak xeeti wayin dégg rythme ak xeeti rythme. Hmm. Ah, parce que dañuy wax ne album bi bëriwul trop trop trop mbalax bëri na ay yeneen sonorité ci nekk euh, est-ce que mën nañu assurer que tëgg bi Cheikh Anta daan tëgg moom la tëgg ci album bi wala bu ko raw. xam nga man nag dafa bari bagage. dëgg la mais en tout cas loo ci mën a dégg mooy. Mm-hmm. wayin bu bees la ak xeetu wayinam mais rythme bu bees ak xeetu rythme. maa la Mama Ndiaye Penda Joojoy sa maam. dama ko dégg. cëw <laughs> dégg neexul ayca mi ngi noonu donc voilà studio bleu bu Papis Ndiaye gis ngeen euh, Wally Ballago Seck départ na macha allah ah cortège bi yëpp topp ci Ramadan nelawuñu ak ay heure rek a des ngir album bi génn donc moo taxoon ñun Feeling Dakar ñu ñëw amal leen reportage bu am solo bi nga xamante ne bii. ñu ngi ko amee fii di euh, buntu kër euh, buntu studio Papis Ndiaye donc tout le staff est là. ñu def nii ba suba. Ah, ñu def nii ba suba. bu ñu defee suba ñëpp ree. ah <laughs> ah. salaamaaleykum. yéen ak jaaw. ah suba suba suba lan ngeen di rek xar wala nag wala gileem. bëy la yooyu bëy ah nga dëgg. ndax bëy daa bëri waaw bëy daa bëri waaw waaw bëy la ñu wàccee mais. am na dinaa ñëw lu doy waar. Papa Gadio Papa Gadio waaw waaw waaw kooku yëpp. waaw waaw. il est connu. Papa Gadio duñ nelaw. gars yi duñ nelaw papa. waaw waaw taw taw feex rek. waaye daal na ko yàlla la fal cat rek. mosoo ko ci seytaane. dolli ko sutura musu ko ci làmmiñ yàlla bàyyi ko ay nitam dañ koo yëkkati ci kaw rek waaw ca kaw ca kanam comme d'habitude rek delloo delloo buum ci mboy mboy gi rek waaw taw féex rek jaajëf jaajëf ayca mi ngi noonu donc tout le staff de Ramdan ñoom itam gis nga waxtu bi tembe ah, ñoom rek ñoo fi nekk le staff de Ramdan rek ñoo fi nekk euh, ngir clôturer li nga xamante ne bii mooy l'album de Wally Seck en beauté 3 heures du matin léegi 4 heures du matin jot mais kenn tëddagul fii ci studio Papis Papis Ndiaye studio bleu ah kenn tëddagul parce que suba événement bu rëy moo xew muy la sortie de l'album de Wally Ballago Seck dégg ngeen Benjamin ni mu ko waxee léegi ah moo ma gënal wax ju bari <laughs> macha allah. alors reportage bi leen Feeling Dakar doon amale ngi noonu donc àndoon ceeg Bamba Junior ak Mbaye Kouthia dig daje demain incha allah ah le 19. kuy laal sama bànn géej waay yoole yoole